sunu mbokki téléspectateurs yi ni seetaan à travers le Sénégal et dans le reste du monde ñoo ngi leen di nuyu gannaaw bi nu sante yàlla nag julli ci Seydina Muhammad ñoo ngi dajaloo tey ci penc mu mag mi penc mu mag mi mooy kan mooy Kër Mbaarik Maam saar Kër Mbaarik Maam saar nag nekk ci département bu Louga arrondissement bu Ngidi la di dëkk bu mag nag waaye ki ñuy waxtaane tey nag mooy jàmbaar islam di alaaji Aliyu Anta Wëllu alaaji Aliyu loo nag l'histoire retiendra aw turam bëtt na frontières yi waaye aw turam nag sax na ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul looloo waral màggal gu réy gi nga xam ni moom la woote ren di édition deux mille vingt quatre ki ko woote nag mooy doomam ju tedd ji El Hadj Mouhamadou Mourtada Mbacke Lo doomam ji nga xam ni mi ngi uufu ci gannaaw yu magam. uuf ay rakkam taxawu njaboot gi di woote bis buri bi at mu jot mu ne ren nag nu jàpp ko nag àjjuma ñaar fukk fan ak juróom-benn ci weeru janvier ak samedi ñaar fukk fan ak juróom-ñaar di ñaari bis yoo xam ni fii leen ko wootee ci dëkku mag bi nga xam ni moo di Kër Mbaarik Maam Sarr Alaaji Aliyu Anta Wali nag moo doon lépp Serigne Touba Xaadimu jur na doom faye ko Cheikh Mourtada ibnu Serigne Touba jur na doom faye ko Cheikh Mahmoud Fadil Mbacke ibnu Serigne Touba jur na doom tudd ko Cheikh Abdou Khadr moom Serigne Touba waaye jur na doomam nag tuddee ko ki nga xamante ni fa tabarakallah mooy Cheikh Abdoulaye Lahad kon lépp El Hadj Aliou Anta Wulu Serigne Touba Xaadimu Rasul la ren nag bis bu rëy bii nga xëy nag woote nañu ko dañ cee sàkk nag parrain bu mag. kan mooy parrain bi xanaa Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké moom Serigne Touba Xaadimu Rasul nekkoon deuxième xalifa Serigne Touba Xaadimu Rasul jëmm ju tedd jooju nag bis bii ñu koy wooteel doomam ju tedd ja maam Cheikh. ma nga xam ni moom la ñu tuddee moom maam Cheikh Awa Balla Mbacké di caatub Serigne Touba moom ci boppam moo jóge Touba am fi ñetti fan ci kër gi was ko jiite pare ne ko ba lépp sotti ñu àndandoo ci gannaawam looloo war nag ñu ngi ci woo nag aduna bi yëpp rawatina juróom-benn fukki village ak ñett yi nga xam ni ñoo nekk ci arrondissement bi waaye doomam ju tedd ñu nag Cheikh Abdou Khadir Jililo nekk honorable maire da la ville de Ngidi la ànd ak bokkam yëpp ak askanam yëpp ñuy teew fa waaje teeru nag bis bu rëy boobu waaye xam ngeen ni nag sunu mag ju tedd ji toog sunu kanam di sëriñ Alaaji Alioune Badara Lo di chef de village yu dëkk bu tedd bii di Kër Mbaarik moom ci boppam nag lañ bëgg a jox kàddu gi. ñu leen xamal ne man ti ma ci am ma ko wax waaye dénk naa lépp yàlla ndax doomu aadama ab yëngum ay waxam yëpp dafa war a dellu ci yàlla. Hmm. lu départ bu delluwul ci yàlla rek neen la. kon lii lépp nag yàllaa tax. Hmm. ndax Alaaji Abdou Alaaji Alioune te eh, romb foo dem fekk fa kaamil ci la jàng ba dem kon yàlla na yàlla doole yar fa mu nekk bis bi bisub alxuraan rek alxuraan rek hmm. ak bernde hmm. bu njàngee alxuraan hmm. julli ci yonent yàlla maam berneel nit ñi tedd ji jox miskin yi kon daanaka lépp jeex na maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp man kontaan la laa def lépp loo xam ne daal am nañ ko yàlla na yàlla yeggale yéen a noo ngi wax julli yëpp nag nañ ko daan defee mm-hmm. bés bu yàgg lan mm-hmm. ndax suñu bàyyi El Hadj Aliou moo ko daan def mm-hmm. ànd ak kooku suñuy bàyyi ñu ànd ak moom ba ni mu làqo di eh, dem ñu di ko def Mourtada mi yor ko bañ jàpp di ko jàppale bés bu nekk nañ ko daan wootee daal ku ji daan ñëw na nga ñëw ku daawul ñëw ñëw ndax fekkee ko am na solo lool ndax alxuraan bi jàng julli ci yant bi teelal fi ay gan te yant bi nee na jël benn tibu ñam rek wala boo xam ndox jox ko bindaa fan mu lekk ko moo gën jox junni jumaa nu bàyyi Aliou Anta Wallou macha allah doon ko def waaye jóge fii Mourtala loo doom ju baax ji jël loolu waaye ci ndigalu ay magam muy sëriñ Omar Sénéba loo mi nga xam si la mooy seen taaw ak président Moustapha Cissé Lo ak rakk ñëpp ñu àndandoo ko di ko def bis boobu. bis boobu nag cër bi ñu ci jox sëriñ Fallou loolu rek a waram ndax sëriñ Fallou Mbakke moo tuddee El Hadj Aliou Lo Anta Wallou seen baay teral tedd ku ko teral tedd. jël loolu jox ko ko yóbbu ko ñaari yoon màkk may ko oto macha allah teral ko joo xam si la ci àdduna gi mu nekk waaye àllaaxira jaw xam si la fa nekk ak moom it macha allah su xel dal na fa kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokku leeram. waaye xam ngeen ni nag Abdou Khadir Djili Lo honorable maire bu wootee ñëpp a wuyu si Mass wax nga dëgg Moustapha Lo Moustapha Diop dana ñëw ministre maire la xam nga ni Modou Mbéré dana ñëw. président du conseil départemental l' ensemble des députés di ajaratu Thioro Ndiaye Diong waaye mënta Mbengue nag kër baayam a ngi nii xaali Mbengue baayam Moustapha Yacine Mbengue ak El Hadj Aliou Yontu ñun ñoo ko nekk ñetti nit benn nit rek la ñu woon kon Aminata Mbengue ñu ngi la woo ci bisu bopp bi waaye bis bii nag képp koo xam ne chef de service régional nga nekk ci réew mi ñu ngi la ciy woo li wax la li jàpp ci agriculture jàpp service d'hygiène jàpp commissariat aide alimentaire jàpp nag fa tabarakalaaw l' ensemble des chefs de service ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi ndax le préfet def na CLD bi ba noppi waaye bis boobu nag daal bisub alquran la waaye àjjuma ji nag di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci la ngontum maam jaaru busa maam jaar yetullaahi nag danoo am sunu maam jaar jenn mi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo koy denc moom ci boppam nag moom lañ ko parrainé mooy ànd ak jigéen ñi nga xam ni ñoo yeewoo ci kër mbaarik ñi sant jenn ñi sant sàll ñi sant loo ñoom ñëpp àndandoo ci gannaawam ñu def nag ngontu maam jaariyatullaahi munu xëyee nag ci àjjuma ja ci la ñuy al alxuraan al karim waaye ñiy jàng alxuraan ñi nag kokki li ñuy de kër sëñ Amar Saxiir loo loolu sax sëñ Maxtaar Naar ci boppam àndandoog dong yëpp ki leen di teeru nag ci wàllu alxuraan mooy sunu imam bu tedd bi nga xam ne mooy imaam Dame loo yor daara ci dëkk bi tàggat gone yëpp ci jàngum alxuraan ñooñu gunge ba alxuraan yi dana bari lool nu ñaanal mag ña ñaanal réew mi ñaan fi jàmm ju ànd ak tawféex ak fa tabarakallaaw jubóo ci biir xol yi waaye bu ñu jógee ci lool nag danoonu bernde ku fi ñëw daanu rey gëléem daanu rey nag daanu rey xar daanu saaf yu picc sànni ko lu baax lu dana fi xew kon daal ku bëgg gis loo mus a gis joxente doon rendez-vous fii ci Kër Mbaarik le 26 ak le vingt bu ko kenn tardé Kër Mbaarik nag mooy Njaambur Kër Mbaarik mooy Sénégal Kër Mbaarik mooy Ngidil gi nga xam ni Abdou Khadir Lo honorable maire de la commune de Ngidil la yor yor yor ay teggin lootaabe juróom-benn fukki dëkk yi ak ñett jox ci ñu mu ko war a jox ñëpp moom ci boppa mën mooy xool magay way ca kaw. diggee sorokam yi ci suuf lëng jigéen ñi ànd ak ñoom jàpp jeunesse ba dara du manqué kon bis baa noonu cérémonie officielle ba bu kenn tardé à de 17h la ñu woon gouverneur mu toog préfet toog l' ensemble des ministres biir réew mi ñoom ñëpp ñu àndandoo toog El Hadj Omar Sène Bolo sunu mag ju baax ja jóg taxaw nag àndandoo Moustapha Cissé Lo uuf ay rakam Alioune Badara moomee nag nga xam ni fa tabarakallahu day lépp kër gi àndandoo ak ñoom ba dara du yàqu. ñuy li nga xam ne mooy bis bu mag bi nga xam muy le 27 le 26 le 27 di ci weeru janvier di gàmm gi nga xam ni mooy gàmmu Kër Mbaarik nga xam ni dañ ci woo jullit yi nga xam ni ñoom ñoo séq département bépp ñi ma ciy jiite nag di les maire du département de de Louga muy ñi nga xam ni yaakaar naa 17 maires lañu. ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo ko composé muy euh, conseil municipal yi ak euh, mbooleem ñi nga xam ni ñooy population département bi. li ci des it di woo ñi nga xam ni ñoom ñooy dëkk yi ñu dendal nga xam ni muy ñaxal pël di fu mel ne eh, deeraag yi ñu dendal Kër Matar Njenneen ñeem siise Dagaj Sarr ak Makka Barage Jëleeru Silla eh, ak eh, Kër Moodu Xari ak yaakaar naa ni dëkk yëpp rek ndax koo limee da ngay da dul matal ñu mën a li ñu wér daal mooy commune bi nga xam mooy commune ngir yi la ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di wax ni képp koo xam ni mas nañ laa demal ab bis ñu ngi lay ñaan boo ñu mënee boo ñu manee ñëwal nga ñëwal ñu ndax tey lii suñu bis la ndax dañ ci am gan gu màgg gam gan goo xam ni dañ ko fonk muy Baye Cheikh Awa nga xam ni sama xarit la boo xam ni xarit bu yàgg la fonk ma lool bu ma fa demee mu teg ma foo xam ni wax dëgg yàlla man sax dama ci euh, am maanaam yarange donc loolu nag tax ma bëgg koo delloo njukkal ci samay biir mbokk wan ko ni ko fi nga ma teg man tam teg naa la fu ko raw mu war maa beral bis ma boole ku mu nekk benn bis loolu nag bis bii ñu ko def muy bisu Kër mbaari bi dama bëgg képp koo xam ne mas naa laa ñëwal nga ñëwal ma ci bis bi woo naa ñëpp ñu ñëw teewal ma ndax ku ma fonk la gan gu ma fonk la gan gu ma bëgg la lu mu def jiital ma ca bi ko sëñ aboo di jiital bi ko sëñ aboo di di gane si ca ndakaaru man dafa ma woo téléphone ni ma dama bëgg nga teel a ñëw mm. ñëw agsi ci bis bi keroog maas mi laa mm. ñoo fa nekk fu mu toog daf may woon ma ñëw toog sama wet kon ku mel noonu bu ñu ñëw di la seet si da nga koy jox euh, gëdd bis bi jox ko maanaam àq ji mu war a laaj mooy que ñëpp laa bëgg ñu fekke ko ñëpp laa bëgg ñu teewe ko fekke li nga xam ne mooy bis boobu. ki nga xam ne mooy Serigne Assane Samb mi nu am nag ci këmit waaye nag di ci sargal sëñ amal Saxir Lo jàmbaar ja ci wàllu alxuraan waaye xam ngeen bu demee nag ba ca jàngee nag. jàngkat yi mooy kuréel gu mag boobu nga xam ni ñooy kuréelu Dagaj Saar fa tabaarakalaaw ñoom dañuy ñëw ci jànge waaye xam ngeen nii beneen kuréel bu mag bi nga xam ni fa tabaarakalaaw mooy kuréel bi jóge dëkk bu mag boobu di Kër Mayib Guèye ñoom itam ci boppam ñoo yor jànge le village de Kër Mbari bi fa lay tàmbale nuyu imam bi nuyu waa Kër Mbari gi li ko wër lépp dëkk yëpp nuyu le chef de l' soo son excellence le président de la république du Sénégal Macky Sall jàmbaar jàmbaar ak ay jàmbaar te te jàmbaar gi da ko wane fii ci Keur mhm. maa koy wax nag ceneen hmm. ñi mu ko wax li may wax man rek maa koy wax daa da ñëw fii ci garab gi hmm. ànd ak jiili mii ànd ak Moussa oto bu ñuul ànd ak Mbéri Silla ànd ak Badia Suer ànd ak sama kanam maa ngi toog mu yéen waa Kër Mbaarik day gis naa yoon wi Moussa wax na ma ko ak forage ba gis naa ko bu ma yàlla dogalee ma jël réew mi day danaa leen ci dimbali ñun nag wax dëgg yàlla man damaa nekk nit koo xam du maa mënta fàtte démb lam ñu waxoon it ba mu yéegee def na ko yu oto oto dama ni euh, camion cinquante cent tonnes mën naa ñëw ci dëkk bi tey te wóor na yàlla xoolal camion ne donc bu ñu ci daan see ab ciment dañ koy dem jëli ci digganteem ak tali bi forage ba it gis na ko PIDC mi ngi nii gis ngeen ko bi ngeen di ñëw kon loolu moo ko waxoon def na ko ñun alxuraan nag dañu wa macha la falaat nar wa mbaa bi ma nit bu dee def na lam la waxoon yow it boo amee nit ñi boo dee am nga ngor bu nit ñi toogee na nga seede loola te benn bàkkaar du ma ci topp duma ci am benn ak ndax billaahi lësi li ma wax dëgg la barke alxuraan li ma am na bis bi nag di kon suñu bisu mbégte kon moom dañ ko ciy beral loolu bañ ko nuyoo ba pare nuyu premier ministre nuyu ministre yëpp ñu kenn ah nuyu le gouverneur de la reson ah di mbokk di xarit di lépp nday ngi naar nuyu préfet su préfet nuyu maanaam euh, maire yi comme ni ko euh, sëñ bi waxee léegi ñëpp nuyu ñëpp daal ñi nga xam ñooy kilifa diine yi itam nekk fii nu yóbbi itam lépp nag bis bi ñi ngi ko tudde tey jii euh, ren jii Cheikh Mouhamadou Fadal le deuxième xalif waaye nag bi ñu ko ko tuddee bis bi maanaam mooy bis boo xam ne bii ni ko sëñ Abdou Khadir waxee euh, doomi sëñ Fallou sëñ Cheikh aw Balla war a ñëw war koo teewee war koo taxaw waaye lépp it bis bi mi ngi nekk loo xam ni sunu wuy jur ak Cheikh Mouhamadul Mourtada sama turandoo ñoom ñoo ko daan dox ñoo ko daan def ba mu agsi fii waaw ñoo ko daan def ba mu agsi fii kon dañoo dañoo wax nii Serigne Fallou lañ ko parrainé ren moom moom moo mooy parrain principal bi waaye li ma bëgg a wax mooy Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke ah caatum Serigne Touba ak waa këram ak waa këram sëñ Maam Mor Mbacke sëñ Mahmoudan ak waa kër sëñ Mourtala yëpp ñoom bis bi seen bi sax man na ñoo ko moom wax dëgg yàlla loolu ñëpp a ko xam ñoo ko moom kon Maam moom moom mooy mën nañ ni moom moo moo tey jii bu doon ànd ak Baye Cheikh Anta Baye Baye Cheikh Balla Maam moor xam naa ni mooy magam day ànd ak moom ñu ñëw taxawu bis bi wala sëñ Mahmoudane mam koy booleel te sëñ Mahmoud da ngeen ko gis nii fii ak Mahmoudane Amar Fall ak ñu ànd ak euh, Cheikh Awa sëñ Cheikh Awa Balla ah ñu ànd taxawee bis bi. ndax looloo rek war a am te mooy am boo déggee ma wax ne ne bisu xëy xasida bi sëñ Assane Samb. ak ji Papa Guèye moom Alaaji Madu Guèye Ndaam ku ne xam na sama digganteem ak sama baay fii baay Alaaji Madu Guèye Ndaam ak der der yooyu der yi ñuy takk la daan takk ànd ak sama baay di liggéey fii ba sëñ Murtala gis ko ni kii ko am pas-pas la ànd ak sama baay mujj bu fan bu daan fanaan fii moom sëñ Murtala ba ci suba ga mu dem gont dem fanaani Ndaam ba léegi Maam Mor mi ngi def loolu def naa ni yéen ñëpp xam ngeen kon li may wax nii def naa lu am solo la waxuma ko pour lenn sëñ Assane Samb daa bokk ñi daan jàngal sëñ Murtala fii daaw sëñ Galaay Sëy lañ ko tudde woon waaw ren ñu tuddee ko sëñ Assane Samb ak euh, Papa Guèye moom El Hadj Modou Guèye Ndam ñu ñëpp ñu ngi fee rek fa tabaarakallaa euh, soxna yi fi nekk yëpp it nag maam bu maam bu sa jiite jiite jigéen ñi nga xam ne moo jiite jigéen ñi soxna maam jaara jiite ngontu soxna jaarali ñoom ñëpp nag ñoom ñooy taxawu mbirum jigéen ñi waaw suñu su kooku nag mooy suñu wéyjur di suñu lépp maanaam sama baay tuddee ko yaayi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma muy soxna Fatma Lo ak suñu jigéen jóobaloo ak suñu jigéen astaloo ñooñu la am ci ay jigéen yoo xam ne yii tey jii ah ñoom it ña nga taxaw fañ taxaw fas yéene ñëw ci bis bi taxawu ca taxaw bañ ca war a taxaw loolu mooy li nga xam ni mooy li wér te nga xam ni amul luñ ciy kii luñ ciy werante la ca tegu mooy bis bi li ñuy ñaan li ñuy ñaan te lu am solo te ñu di ko ñaan bu fi kenn ñëw bu fi kenn ñëw di fi wax lenn lu dul lu jokk bokk bu fi kenn ñëw di fi di fi di kenn wala mu fi jéem a am maanaam di di di wax benn programme boppam nañ ci giseen te ñun ñëpp gisandoo suñu bopp yàlla mm-hmm. gis ci yonent bi gis ci Serigne Touba mi nga xam ne moo tax nu koy def waaye bis la boo xam ne daal su ma sañoon wax dëgg yàlla ah ku fi wax rek na nga wax lu baax kuy def na nga def lu baax kuy jëf na nga jëf lu baax bu fi benn am différence am pour maanam ci wàllu werante ci dara ndax day bis boo xam ne bii wax dëgg yàlla man ki ma ko jëlee ci moom mësta am problème ak kenn muy sama baay Alaaji Aliiloo yàlla na yàlla dolli ay xéewalam ak ak soxnaam yam fa nekkal ak njabootam dolli seen i xéewal tàbbi leen àjjana fi daw si ay bis bu réy boobu nag ñu pare ne ko Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke bàyyi Cheikh Awa Balla ci boppam di caatam di ñëw ñu ngi ci woon waa kër Ibra Binta Fall njabootam nga ca paay nu ma faal kenn du tudd sëñ Fallou ci tudd léegi ñu ngi ci woo Alaaji Samba Niass ak njabootu ma Modou Niass ca ndaam kër gi waaye ñu ngi ci woon ak sëñ Fallou Sall ca kër sëñ Fallou gi nekk fii ci Louga ak daayira sëñ Fallou yi ñu fàttaliku ci ajaratu Thiaré Niass mi président daayira yi ak Alaaji Gora Loum mi président daayira sëñ Fallou yi bis baa ngi noonu nag danañu ci sargal ki nga xam ne moo di Papa Guèye bu ndaam danañu ci sargal ki mooy sëñ Assane Samb bu kamit waaye danu sargal nag sëriñ Fallou mi nga xam ni doomam ju tedd ja di caatam ma di bàyyi Cheikh Awa Balla moom ci boppam nag mooy ñëw waaye xam ngeen ni nag bis boobu ñu ngi ci woo waa kër maam Cheikh Amad Kabir Mbaye sëñ Sayir mbay bis baa ngi noonu yaag njabootu maam Cheikh Amad Kabir danañu ci sargal njabootu kër soxna yi surtout si Malick papa Ndiaye Sarr bis baa ngi noonu sa bisu bopp la daanu ci sargal sëñ Dan Mbacke moom Cheikh Moutada di ci sargal sëñ Dan Amar Fall Mbacke imam rati bu grande mosquée bu ndimmee waaye ñu ngi ci sargal nag ki nga xam ni moo di njabootug alaaji Moustapha Moustapha euh, njabootug alaaji Maodo Dia te Moustapha Dia nekk ca bopp ba waaye Babacar Mbaye ci kër alaaji Racine Mbaye bis baa nga noonu ñu ngi la ci sargal di ci woo nag ki nga xam ne mooy sëñ Abdoulaye Fall jàmbaari Baye Fall ja nekk ca quartier kër sëñ Baara mbake ak njabootug sëñ Baara gépp waaye nag di ci woo ki nga xam ni fa tabarakallahu mooy njabootug kër alaaji Mujub Diop ñu ràññee ca Papa Diop ak Aliou Diop bis boobu seen bisu bopp la waaye ngay ne waa kër sëñ Abbas Sall Cheikh Tidiane Sall ci boppam bis boobu yaa ngi jabatu sëñ Abbas ñu ngi leen ciy woo waaye nag sunu wala réew nag nga xay mooy Mountaga Sy di directeur général du port autonome de Dakar bis baa nga noonu ñu ngi la ciy woo yaak fa tabarakalaw directeur généraux yi nekk ci biir réew mi yëpp ndax kër gi mooy dëkk bi nga xam ni fa tabarakallaahu lu baax lu ne fi la ne waaye Thierno Bachir Mountaga Daha daa de la famille omarienne bis baa ngi noonu si bisu bopp la ñu ngi la ci woo di ci woo njabootu Alaaji Njege Njaay ñu ràññee ci ki nga xam ne moo di ab Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Abdou Ndiaye doomam ju tedd ja nekk nag ki nga xam ne moo toog ci pèlerinage à la Mecque di liggéey liggéey bu rafet ba waaye xam ngeen nag waa Touba Ndiamour di sëñ Abdourahim di kenn ci kër gi bis boobu ñu ngi ko ci woo bàyyi wunu kenn bàyyi wunu fépp diina yi Serigne Abdou Karim Mbakke ca Mbakke Baari macha allah ak njaboot Cheikh Abdou Aziz Baara gépp waaye di woo ci bis boobu nag maam Cheikh Mbaye moom alaaji jiili macha allah di lépp ci kër gi moom bis boobu nag bisama kon ñu ngi ko ci wax ak njabootu alaaji jiili gépp boobu nag du ñu fàtte Serigne Jiili Mbacke moom Serigne Mbacke Madina ci dëkk ba naan Makka Baragéej ak ki nga xam si la mooy Serigne Mbusoobe du ko fàtte ci bis boobu. mu njare mu njare kon ñu ngi woo ñun ñëpp daal kilifa dina ci rëpp ak su Serigne bi ci ah, dëkk bi naan ah, Mborom Diop macha allah di Serigne Jiili Mbacke di sori Serigne Baara. waaw ak sëriñ Souleymane Bousso ñu ngi ko ca njare ñu ngi koy woo ci boobu bis baa ngi noonu bisub sëñ Omar Sénéba la bis baa ngi noonu bisu Cheikh Abdou Lahad la bis baa ngi noonu bisu Serigne Fallou la bis baa ngi noonu bisu Cheikh Moutada bis baa ngi noonu bisu sëñ Mbër Guloo la njabootug alaaji Aliou Anta Wallu ñoom ñëpp àndandoo ci wetu ki nga xam ne moo di alaaji Moustapha Cissé Lo ci gannaaw magam alaaji Omar Sénéba ñu jiital Moutada ki nga xëy nag sunu meere nag de la commune de Ngidila Cheikh Abdou Khadre Djily Lo jàmbaar ji moo woo réew mi yëpp ak tund wi yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn kañ lañ ko jàpp El Hadj Modou jàpp nañ ko samedi le 27 du mois de janvier l'an 2024 fii ci Kër Mbari. <laughs>